Thiam ak Jam Jéeri. bu neex. ñaata minute la ñu bëre. combat bu neex. combat bu neex. Jam Téeri Jelli. Jam Jéeri day bëgg a sonn wala nu muy demee nii. ñaari xale am nañu entraînement ndax li am sànq ku ci amuloon entraînement daanu. daanu ba ñaari mbër yaa ngi mi élew ndeysaan mars 23 février. ndeysaan drapeau Marcel Diagne. billaay ndeysaan. borom jam ñaajo lamb du président. billaay. jamono jamono event. le promoteur. Babacar nee na leen daje leen. Babacar ëffalkat la. ëffalkat la. daf leen war a bàyyi ñu noppalu. ruumalkat la Fatou. ëffalkat la. Jamteeri Jetli Jetli yee Jokaas Jetli ngi tooñ Fatim. Jetli ngi tooñ. mu ngi tooñ. waaye nag del xool mu jam Jamteeri heure bu Jetli Jokaasee. ñu ngi dóorante. Jamteeri day riposté. ah eh, tooñante fa. tooñante. tooñante. tooñal oh. eh, de force. Eh. épreuve de force Fatim. fi doolay feeñ. xam nga xam nga buur buur. sànq léegi nit ñaa ngi naan jam ceeri moom moo ëpp doole ki nga xam ne ni moom mooy moom mooy moom mooy jat mii loolu li liggéey na ah. liggéey na Fatou liggéey eh, li nga bëgg sottiwul sotteegul sotteegul sotteegul jat li du ni loxo bi ci ngemb eh nax nañ la jat li jat li da ngay dem taxawal bul dem jat li taxawal da dem jël goreel da daanu jël lii boo ci génnee ma xam ne yàlla buur a fàttali yàlla jël lii daanu nga jam teeri daan na jël ana waa Kayar ana waa Kër ana waa Kër ana waa Kër Gilaay jam na jël sotteegul sotteegul sotteegul jët li dundil loxo bi ci ngemb eh wayele nax nañ la jët li jët li da ngay dem taxawal bul dem jët li taxawal da ngay dem jët li goreel da daanu jët li boo ci génnee ma xam ne yàlla buur a fàtti yàlla jët li daanu nga jam teeri daan na jët li ana waa Kayaar ana waa Kër Mbir ana waa kër Sega ana waa kër Gilaay jam teer daan la jëtle